mbokki jullit yi mbokki taalibe yi su ngeen déggee lii xam ni xew-xew bésub diine bés bu mag bi si daaru xudus si jàkkee njuga kebe mu doon conférence religieuse kenn moo ko war a amal di Fatou Naaru Karim yamook jeudi 8 juin 2017 juróom-ñetti fan si weeru juin bi ki nga xamante ni dafa jeex si Karim wadd di responsable politique bokk si union des karimistes nee na ginnaaw ndigalu Serigne Mbaye Gumbala bés bi ñu ngi ko dara jàlle Cheikhul Khadim Mbacke ibnu Serigne si waaye tamit dara jàlle ko président Karim Meïssa Wade Madické Niang Adja Woré Sarr député à l'Assemblée nationale Serigne Cheikh Bara Dolly Mbacké responsable politique PDS du département de Mbacké Sokhna Astou Thiam njiitu mouvement Karim Tànneefu Askan Wi sa États-Unis monsieur Val Gadio Diouf moom mi nga xamante ni moom moo lëkkale mbooleem mouvement de soutien bu Karim Wade ñii lañ dara jaale bés bi fàttewuñu également Cheikh Mbacké Babou Touba Darou Koudous Serigne Mamo Sougou Wadane Bass Babou Dakar Cité Fadia docteur Ibra Babou nekk si pharmacien si Kébémer Basirou Aj Dakar Dame Ada Babou du commerçant nekk si Sandaga Tafa Babou soppey Karim Wade sa Kaolack Khalifa Amar du commerçant si Sandaga Ahmed Babou nekk sa Mbour Cheikh Bass Gumbala bokk na si ñi nga xamante ni ñoom lañ dara jale bis bi di Omar Gumbala si Mbour ak njabootu Gumbala gi yëpp maam Gor Sëy ak mboolem njabootu Sëy ci conférence bu mag bi ñu ngi si woo naaru yëpp njabootu Gumbala tëggu Sadi Amar di si woo Dame Babou El Hadj Amar ak Matar Diakhoumpa union des karimistes du département de Mbacké fàttewuñu coordinateur bi di Khadim Tall également le président Mame Gor Kébé fàttewuñu tamit ki nga xamante ni moom mooy présidente bi di Khady Fall Tafa Cissé réew mi Serigne ñu ngi koy woo ci conférence bu ni mel ñu ngi nag su bis ba conférence dina am programme bu yaatu diggante 10 heures jàpp 12 heures ñu fas yéene amal ay jàng ñun ñoo ko nar a amal El Hadj Mam Dam Seck ba tey 12 jàpp 13 ci animation bi ñu ànd si ak El mbay Mbaye bu ñu jógee foofu dinañu tàmbali cérémonie bi à partir de 13 heures 13 heures jàpp 14 heures suñ fa jógee nag mbokk yi ñu ñëw si conférence bi kan moo ko nar amal ki nga xamante jeexam si ku tedd kii waaye tamit xamam la muy wax ak teg ko si xam-xam ak gëstu bu weex kooki moom mooy Serigne Gana Messere yi ñu ni thème conférence bi le rôle des femmes au foyer maanaam njariñu jigéen ñi seen biir kër mbokk yi événement bii nag du événement wu diine si Daaru Xudus jàkkay Njuga Kebe yamook jeudi 8 juin 2017 alxames juróom-ñetti fan si weeru juin bi à partir de 10 heures soxna Fatou Babou Naaru Karim nee na mi ngi woo mbokk yi am di jàmm yi ak mbokku naaru kajoor yëpp ak ñëpp ñu mbokk langue politique gi joge ñaaleem yi ak ay dëkkaaleem si événement wu diine bu mag bii mu nar a amal di si sàkku képp ku fa teew lépp loo fa ñaan mu nangu si barke Serigne Touba. Erba